أتى رحيم بالنبي رحيم وآله وصحبه فهاني العذاب الكدري للمتباجب في سفينة قبل سنة يخلد في المدينة أغلس في المدينة كناكري للمصطفى الماحي بلا مناكري هرب مني حقل بي كرم مساء مبارسي ولسواي وبساء ملك للملك عند دومي ما غسفاني إذا تسعوني نفعني نافعتي لمروري بما به يخفتني كل ولي ولي من كفى من بلوى يسوق سهم جل خير الله نورا ولا اله الا بوك يجري للحساب بوك يتعلمي نوغي دي نوي di leen ziar di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi sunu kilifa tedd bii muy Cheikh Mouhamed Mountakha ibnu Cheikh Mouhamadou Bachir di siyaare sëriñ bi xam su ko baax di ñaan suñu borom yàgg na ci lool may na ci wér lu mu lay gëree yéene ak naa ni seen maam ak seen wóobi ak seen xarit borom kaam yi dañu eh, ko wax rek muy dugg ci ñaari fànn rek jamono ji moom fàttali ko rek. borom téléphone bi. téléphone ci kanam. ci nu mu jàngale ndax ni Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leeral li ko tax a jóg min abdullahi la wa rasuluhu noonu la Yonent bi noonu la Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu leer na ni li mu doxal bu nga xam ne dafa am naa wax suba bu ñu doon doxal lu dikkaat rek ay détails yi ñuy détaillé ñetti bàcc yi jëmale seen tubaay dafa am principe leer bu ñu wax bu ñu wax bu ñu wax ne kii laa jaar lu tax dikkaat rek ci ginnaaw bi ay détaillé teg sëñ bi dafa am dafa bind laa bataax ni bataax maa bind képp ku sama jëf ma ah, ne képp koo xam nag yaa ngi gis mbind mii nanga xam ne man jaamu yàlla laa di liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi yonent bi mooy sama yonent di sama wasiila alxuraan it mooy sama tegtal daal di wax ni kaaba gi mooy sama la lii daal la wax ni mooy pas-pasam te nit ku ne dañuy bëgg nga leeral sa pas-pas ba nga xam ne bu doonee lu wér nit ñi mën koo seere ëllëg ci kanamu yàlla bu wéru tit ñu mën laa jubbanti sëriñ bi nag lii la wax lépp lu mu waxaat gannaaw bi nag ay détail la yoo xam ne day détaillé loolu yi mu saxal ba noppi sëriñ mu wax ni rafaatu aqlaami له مع الوداد مع المداد وسي وسيعت بأدب وبوداد dafa am samay xalima ak samay daa dama ko yëkkati jox ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam waaye ñu gungee ko it ab yar akuk cofeel delluwaat ni faaraxani bihi jamiu lkafirin qablu waddani jamiu shakirin ci liggéey bi may liggéey yonent bi sallallahu alayhi ci laa tàggoog mbooleem yéefari mbooleem way sant yi ci lañ ma bëgge kon doy na euh, xel mu dal ci ànd ak sëriñ bi ni bokk nga ci shaakiroon yi muy wax te suñu borom ci alxuraan dafa wax ni xaliilan maa tashkuru ginnaaw nag jaam yépp daf leen defal xéwal wane ni lu néew lañuy sant Sëriñ Tuubaa wax ni wa waddani bihi jamihu shaakirin kon loolu doy na xel mu dal ci képp koo xam ne am nga ak cofeel ci moom mu delluwaat ni hërëbatil fujjaaru turran li siwaay mbooleem kàccoor yi daw nañu jëm feneen fudul ci man wasaara al abraaru xobban li hawaay daal di wax ne mbooleem woy baax it jëkkanti nañu sama bànneex ngir cofeel gu ñu am ci man mu mel ni kon sëriñ bi dafay détaillé ci biir xasida yi pas-pasan bi mu daan dund ak ni mu daan doxe digganteem ak yàlla ak digganteem ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax na it ni xidmatu xayril aalamiina salabat liyal kitaaba wal ida lii xalabat liggéeyal yonente bi sallallahu moo ma rekkil alquran moo ma notal it samay noonu kon nag jataay yu mel nii jataay cant la lu war la ci nun ñu sant ko ndax teewe ko rekk barke la teewe ko ak texe la teewe ko ak mucc la waaye teewe ko it nag ak xéewal la ma ni wax naa ay yoon ci jataay yu mel nii ne fekke gi rekk tawféex la joo xam ni nit mënu koo xalam ndax ci xadis bu wér yonent bi daf ci wax ne dafa am malaayika yu suñ borom bind yoo xam ni jataay yu mel nii képp moo leen tax a jóg jataay bu mbooloo daje di fàttaliku yàlla saa bu ñu ko gisee dañuy wootante ci seen biir ni xëy ñëw leen li leen taxoon a jóg kat mi ngi nii buñ ñëwee dañu leen di peeg ba ca kaw seen borom dana leen laaj ni leen ana nu ngeen fekk sama jaam yi te fekk ñoom moom mu leen di laaj sax moo leen gën a xam la mu leen di laaj ñu ne ko dañu ko fekk de ñu di la sabaal di la kàbbar di la réyal di la ñaan di la jégalu mu daal ni ndax dañu ma gis ñu ne ko déedéet gisul mu ne waaw bu ñu ma gisoon am na ñuy def ñu ne ko bu ñu dee gisoon de lu ñu defoon dinañ ko yokk mu ne ana lu ñuy ñaan ñu ne ko aljanna ana lu ñuy sàkkoo muslu mu ne ñuy muslu ci sawara sunu borom ni maa ngi leen di seeral ni la ñuy ñaan may naa leen ko la ñuy muslu it musal naa leen ci mu mel ni foofa danañ ko wax ne ko ah diw dafaa jaar képp waaye bokkul ci mbooloom mu ni leen ulaayika al xawmu laa yashqaa jalisuhum ña fa jaar sax doon lijjanti seen problème sax jéggalaal naa leen kon loolu tawfeex la ci fekk jataay yu mel nii muy jataay boo xam ni léppi jataay bi yàlla képp a tax am na ñu ciy financé seeni alal ngir jëm yàlla am ñu ciy financé seen waxtu waxtu bopp ngir jëm yàlla am ñu ciy financé seen kàttanu bopp ngir jëm yàlla waaye duñ ci yëg sax ab coono ngir yàlla képp ko war mu mel ni kon dajale ay xol yàlla képp ko man lu jafe la dajale ay xol lu jafe la nit mën naa jël ay milliards bëgg a dajale xol yi nit ñi te du mën a nekk moo tax saa bu xol yi daje ci jotaay bi mel nii rek nañu xam ne yàlla képp moo leen fa dajal du leen waaw ndax suñu borom li wax yonent bi ci alxuraan mooy law anfaqta ma fi l ardi jamian ma alafta benn xolo bi ni ko addunaaw li ci biiram boo ko financé woon nit lu tax nga boole xoli nit ñi walakin allah àlla fa baynahum yàlla rek moo mën a boole xol kon lii tawfeex la jooju sant rek a ci war mu mel ni kon bis la boo xam ne dañ cee daje ngir fàttaliku bisu zikar la bisu sant la bisu ñaan la waaye it mooy bisu it nag fàttaliku kan kon ñu wax ñu xam rek ni euh, Sëriñ Tuubaa bis bii ñu dajee ngir di ko def muy muy xasida yi ñu taxaw ñu daje ngir jàng ko ak di ko sargal ak di ko réyal ak di ko màggal bis ni ki tey lépp lu mu lu mu am rek ci la ko am waaye nag lépp lu mu daj nag xasida yi moo tax mu daj ko loolu daa ma taxam lu mu ko daj waaye lépp lu am ci la ko amee loolu daa ma taxam Cheikh Mahamadou Bachir dafa wax ni radiyallahu anhu Cheikh Mahamadou Bachir dafa wax ci minal baa xadim ni sëriñ bi wax ci làmmiñu boppam ni ma xasida sàngam gii bi mu jeexee moo sabab sama tugub géej gi xasida gi mi ngi tudd muxaddamatul xidma ñu di ko tuddee al muxaddamatul kubra fi salaati ala al bushra sëriñ bi ni ko xasida gi di ak àggam nangu googu suñu borom nangu moo sabab yoonu géej gi kon mu mel ni kon ndekete xasida dana indi nattu bu toll yoonu géej gi waaye nag ab nattu la boo xam dañ ko euh, day xéewal ñu ëmbee ko ab nattu ci kaw muy ni'ma fii tayyi niqam mu mel ni kon xaside yii ñu daje tey di ko màggal moo sabab sëñ bi ay këram wéet mu dem ba ay njabootam yëpp tasaaroo mu wax ne xusóoree xalat wal ahlu anni tafarraxat samay kër wéet na samay njaboot tasaaroo nañ kon xaside yi moo sababoon loolu loolu it ba tey ki nga xamante ne moo ci yëngatu war naa xam li mu nekk lan la ba lu mu ci dajee ci nattu it nag xam ni jegeegu la dajeeg nattu bi nga xamante ne moom la sëñ bi dajeeloon waaye day def ni bala ni nux nux dana ni war war fokk mu metti doog neex loolu it ba tey euh, daa mat a xam ci lu mel nii mu mel ni dafay wëlbati xol yépp jëme leen ci suñu borom muy xasit day jëme day yépp xol ci yàlla li gën ci àdduna rek mooy wëlbati xol yi nit ñi jëme leen ci suñu borom loolu yi nag la Sëñ Tuubaa du liggéey liggéey ko ci biir xasida yi ba ni muy wëlbatee ab xol jëme ko ci yàlla sax néew nañu gis lu ni mel mu mel ni jazbul qulub la wax li allaamil quyub kon léegi dafay xëcc xole jëme leen ci yàlla mi xam lépp dellu ni mawaahibu naafi fii madaahi shaafi may aji jariñe ji ci tagg yonte bi aji ram indiwaat gën a tuddee ko am daa fii mazaayal miftaax kon lépp luy yëkk luy yéeg yéege xol yi la jëme ko ci yàlla mu fees dell ak i leer ak i mbóot yooyu bu fekkoon ni keneen la kudul moom daf koy denc bu doon aw mbakkaay fekk woo xam ne jëmmam ma koy tax a jóg akuk njabootam waaye du doon keneen ndax kat ay jamono ca gannaaw ñi jëkk a xam xam-xamu kimia ci égyptiens yi dañ ko daan denc mu doon ay mbóot yoo xam ne seenu njaboot képp lañ koy jox waaye duñ ko jox keneen naka noonu ca Yunaan xam-xamu médecine ña ko jëkk a xam dañu ko daan def secret di ko joxante ci seen biir waaye ku dul ku bokkul ci famille bi doo ci bokk ba ci ahlu tasawuf rek fii rek da nga fi gis ñoo xamante ne danañ yor ay sirru ay xam-xam yu jóge ci yàlla yoo xam ni dañ koy denc ngir seen jëm bopp ak seen njaboot waaye duñ ko jox kenn ndax Sëñ Tuubaa def na loolu ko de jës bu mu mu xadimaat mbóot mu nee ngi ci leer gu nee ngi ci njëriñ adduna ngi ci te mi ngi fii ci marché bi boo gu yomb nga koy jënd sax mu defal ko ngir murid yi waaye daf koy def ngir adduna bépp pour ñëpp mën ko jëriñoo kon kooku euh, lu mat di xam la mu mel ni Sëriñ Tuubaa kon dafa ñëw ngir yeesal si diine yonent bi sallallahu alayhi wasallam diine du màggat benn yoon waaye dafa màggat ci xol yi moo tax mu ñëw di ko yeesal si ci xol yi nit ñi wax ne lil Mustafa nawaytu maa yuy jaddidu sunnatahul xarra damaa ñëw ngir yéene yeesal yonent bi yeesalal ko su sunnaam kon diine moom jikko rek la kon ku la gën a rafet jikko rek moo la ëpp diine waaye ku la ëpple jikko yu ñaawit gën laa sori diine jàng alxuraan ak xasidaak sikkar ak yu baax yooyu yëpp dañ koy def ngir mën a am rek jikko ju rafet li fekk nit ki amagul jikko ju rafet la taxoon alxuraan a jóg mbaa la taxoon xasidaa jóg na nga xam ne àggu ci ba léegi loolu daama taxam ba tey Sëriñ Tuubaa nag moom képp moo doon jihaat ba muy jihaat antoon kenn antoon kenn te bi mu demee ba ba dajal la muy dajale daf ko tasaare ñëpp bokk jaahatu bil xatti la wax si nii na wax di mi ngi ko wax ci génn xasida goo xam ne mi ngi ko tàmbalee ci li ya'lama an-naadiru anna xatti ilaa ilaahina ahabu xatti kuy xool ku ne na xam ne sama mbind mii moo gën yàlla mépp mbind daa ci ne jaaxatu bil xatti si nii na wax di man lam yakun muwaxidan saa jaxdi jihaad naa man képp ay at ak noon yi nga xamante ne dañoo wedd yàlla bil xatti jaaxatu hadu wallahi ashrata bi zikrillahi jihaad naa ci mbind fukki at min aami ay sasin li aami kasasi wa xabilal jamia ama ak sas nee na suñu borom rek nangul ma lépp ci àdduna agsi si daal di fal yow ma xasaratu xattiya ila tajdiidi diinillaahi waahabilillah léegi nag mbind mi jëme ko ci yeesal diine daal di xat ahab ilayhi min kulli kitaabatin tuhab suñu borom def na sama mbind moo ko gënal mépp mbind mu ñuy bëgg daa ci law an na nii lam atrukil kitaaba mujahidan biha zawil itaab lamaata bil wabaa kullu kaafiri in lam yatuubu lil ilaahi alxaafir ma ma bàyyiwutoon mbind mi di jihaad rek ak noonu yàlla yéefar yëpp dinañ dee ci mbas buñ buñ tubut daa ci teg laakin afawtu an jamihi naas waaye damaa jégal mbooloo mépp li wa ci baaxin muhlikin xannaasi kon ndigal yi li ci Sëñ Tuubaa jëkk a digle mooy ab murit wërta yàkkam ndax fukki at la jihaad doo gis ak fatu ak wuy wala takun lil fathi dastijaal bul yàkkamti ak fatu li annahu l maxiidu lirrijaal nit yàlla yi bu ñu gisee benn fatfu mbaa ñu gis karaama dañ ci daan am kersa ni jigéen di amee kersa ji bu gisee ragal loolu tax mu ne walaa takun lil fatxi dastidaali li annahu l mahidu li rijali del wax ni sabran jamila laa takun kasula fokk nga muñ muñ ko rafet tabul taayal ndax innal kasula laa yasuudul jël ndax taayal kat ku ko def du sang ak maasam waaye nag nit ñi jamono bu ne ñooy nit ñi rek nit ñi ñi fi nekk jamono bi ñu toll di sànni xeer nit ñu baax ñi wax lu dul noonu ñoo fi nekkoon naka jëkk naka jekk ñoo fi mas nekk ñoo fi nekkoon démb ñoo fi nekk tey ëllëg ñoo fi waaye nag léegi dadi ba ci yonente bi gën ci nit ñi sax am na ñooñ xeex ak moom képp lañ mënoon ak di ko sànni ay xeer waaye ne nit yàlla piir du gestu ku koy tagg du xoolit ku koy ŋañ sëriñ Tuubaa ka ko daan tagg ak ka koy ŋàññe yemoon fi moom ci yërmaande jëm leen di yërëm ak njëgal ga ak ñawante ga ku yërëmoon doomu aadama yi moo xam ña ca baax lañ moo xam ña ca nekk ci ludul noonu lañ ñuy ku yërëmoon nit ñi la ka cay topp yàlla ak moykat yàlla moo tax bi muy ñaan dafa wax ne xot ummatal Mustafa xan kulli mafsadat na nga ma aaral xeetu yonente bi ci lépp yàqu-yàqu daal ne wal tarxamil xalqa waaye danga na nga ma yërëmal bi ne fi yaa man jaddahum badaa sëñ Tubaa lépp daf ko aare woon léppam daf ko aare woon activité yu tëppale loolu daa di fàttali toujours activité yu tëppale jamono bu ne yad yi ta xottu lay wax wala lisaani yadlu jamono bu loxo bi bind lam yi mi ngi jàng mu dellu wax ne xal bi yenn wil xayra wal lisaanu tan xoo lahul askaaru sama xol lu baax la yéene sama làmmiñ fu mu toll day day day day day fàttaliku yàlla kon ma jeexale ni Sëriñ Tuubaa jikko la jikko nag ñaar la topp ndigal la ak bàyyi tere Sëriñ Tuubaa ñaar yooyu la jikko la jikko nag topp ndigal la ak bàyyi tere kasbiya tawxiidun la wax wa matxun li nabi sëriñ bi dafa wax ne sama pàgguteef yëpp mooy wéetal yàlla ak tàgg yonent bi sama loolu yi nag ay yoon la ko wax ci xasida yëpp wax nañ léegi yaqulu abdullahi wa huwa ahmadu xadiman sumaatu wa muhammadu delluwaat ne xaalal xadimul abdu wa huwa ahmadu wa rabbahu bi ahmadu del wax ne man lay si saadu ahmadu maalikahul abdul xadimu ahmadu kon léegi principe boobu ci doon dox muy al ubudiya wal xidma jaamu yàlla liggéey jaamu yàlla liggéey jaamu yàlla liggéey lépp lu ñëwaat nag ay détails la yu détaillé baat mu doon koo xam ni ci wàllu jikko yi yi ñuy tere ku daan bañ wax lu dul dëgg fenn daf ko daan tere ak jëw jëw mooy deru nit nga nekk ci jaxul la neex rambaaj mooy jaxas diggante nit ak nit sëñ Bachir dafa nekk li ci mënul baa xadim bi ni benn bis dafa am ay taalibeem yu amoon jafe-jafe ak eh, ñennat nee na bi mu tàggoo sëñ bi sëñ bi ni ko boo demee de fexeel ba lu wax lu dul dëgg ba nit la ko sëñ bi wax sëñ Bachir ma demee lan ma waxoon laa jafe ni ko muy damaa dem man leen bañ ma laa man leen wax dëgg yàlla xawma ci dara te noonu la demee loolu moo ko wefantooy kon yoonu murit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 kon ma daaneele sëriñ Hamsatu mii nga xam ni kuréeli xasida yi yëpp dañoo dajaloo ne dañoo bëgg a màggalal xasida yi te fas ko yéene defe këram jox ko li ma xam ci moom mooy yéeneem ñaawut xatut nit nag bu amee yéene ju yaatu ba noppi rafet lu rek yaayoo na ko yéene ji ñaawut xatut ma xam ci moom tab goo xam ne sax dama koy wooyee Serigne Massamba li sax ma di ko di ko tooñe mooy dañoo wax ne Serigne Massamba dinaan lépp sax di maye moom tab googu ma xam ko ci moom moo tax ma di ko wooyee di ko wax ne kii Serigne Massamba tam ma xam ci moom ak bëgg Serigne Touba goo xam ne it ak volontaire ay jamono de bi ñu nekkee ak Serigne Moustapha am Serigne Mbacke borom dër bi ci biir kër Serigne Sonia danaan fanaan laxasaayu di bind ba bët set danaan fanaan laxasaayu daan def di bind lépp lu sëñ Moussa ndax mën a nekk mu ne ko waaw mën a nekk kon nit bu fekkee ne day yéene aw yiw wu yaatu lu man ci lu baax def ko ndax li ma xam ci moom mooy daara jone yéene woon na yor ko bari na daara ju fi am courant moo ci taxaw bari na daara ju am ndox moo ci taxaw yéene ju toll noonu nag ku ko am loo am rek yéene ko ñëpp dañu ko war a jàppale dañu ko war a ñaan mu yàgg fi ñaan ko mu egg ab liggéey waaye kenn war a taxaw sax di ko xeex mbaa nga ko bu ndoxtaal mbaa jàpp ci moom lu dul noonu li sëñ Abdou Lahad ni koo xam ni waxi daawam ak waxi renam boo ko xoolee mu doon benn kuy bëgg kuy jàpp jàppal nit a ngoogu kuy ànd àndoo googu loolu lii mooy li ma seetlu ci moom tey it sëriñ Soxaay bu it mas ko wax ni ko damaa am ci yow yaakaar ma jàpp ne yaakaar yi doon sëñ du tas noo ngi am yaakaar ci bu yaakaar jooju bañ a tas duy ñaan suñu borom bañ a tas bëgg ñëpp ñaan la ko bañ a tas sëriñ Saaliw damaa am seere sama diggante ak moom ndax dafa bay mbay ba mu mu jox ma ko moom sëñ Hamza ni ma damaa bëgg nga joxal ma ko sëñ bi ndax li ma wër ci fari facture courant ak téléphone dafa bari te su ma yeexee dinaa ko ci fay te dañ koo liggéey ngir jëm Sëñ Tuubaa ma bokk teg ci loxo moom fii nekkal Sëñ Tuubaa bu ma demee wax ko sëñ bi sëñ ah, loolu la ci dëkk loolu nag ñu ñaan suñu borom mu may ko ak yeggale ak ku yegg ak tawféex di ñaan yi ñii nga xamante ni yéen fi dajaloo di kuréeli xasida yi ak ñi ci am yéene ak ñi ci jàpp ak ñu ci nit jàppee rek yal na la suñu borom defal tawféex defal la ndimbalam defal la xéewal ak mucc ak nangu goo xam ni amutu bi amukaay adduna alaaxira jërë ngeen jëf asalaamaaleykum ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziar ñu ngi lay ndokkeel laa dooleel. ci barke xasida yi Seexul Xadiim yi di nuyu njabootu Sëriñ Tuubaa di ci teew yëpp tàmbale ko Sëriñ Abdou Samad mi nga xam ne moo fi teewal njabootu Cheikh Souhaïbou Mbacké ak mboolem njabootu Sëriñ Tuubaa gi nekk di teral nuyoo sunu sëriñ Cheikh Abdou Lahad moom sëriñ Modou Maam moom jox sëriñ Moustapha ak rakk dañ ma am yëpp di nuyu suñu jëwri suñu kilifa suñu njiir suñu wéttal suñu dalalu xel sëriñ Amsatu Bakke moom jox sama ñu ngi lay beral suñu yokkoo te di ko yëkkati sa kanam kilifa yi di la dalal sa cant bopp di ko yëkkati sa kanam kilifa yi ndax kat wolof nee na ragal féete day xaj wës ñun féete na mu yow wér te ñu ngi koy seeral suñu borom di ko seeral yeneen nga day saratu salaam di koy seeral mbokk yeneen bés yëpp di ko seeral Sëriñ Tuubaa ci ndimbalal soxna Aïssata Ba Mbacké ak Sëriñ Saliou ndax xet wolof nee na te cumul liir bu neexee ndey jara jàpp te woggee waaye ñun ahlu xasida day yëg nañ ne am nañ ndey ju jàpp ko su day wax moo tax neex na macha allah kon jërëjëf Mbacke euh, di ziare mboolem ñu bokkal liggéey bii ci tawfiix ji suñuy xel ñu daje dajaloo ci benn barab yenn dafaa jàng alxuraan ak xasida yi sëñ Tuubaa yi ngir lan ngir màggal mbindam sëñ Tuubaa moom yi mbind moo xam ne su ko borom di bind aras day jaayoo malayka yëpp di jaayu yonent yi seen xol yiy fuddu siis bi yàlla toog di yëngutu mbind moomu lañuy ñuy màggal tey turu xasaayit day yàgg na fi waaye ku ko mos bind far na buñ tuddee xasida rek xel yi dem ci sunu waaj ndax moo ci def lu kenn musta def am ci lu kenn musta am di ci maye lu kenn mënul woon a am te nun ñii seera lañ ci kon jërëjëf Mbacke na ñëpp bokk déglu ma mbër feeñ na sumu sëfuma ku ñëw di saay wax mbir mbër maa ngi gis sooy ko àll ba ak bu bar yow li nga ne te mooy la war léegi sax ànd te ci nga war yow am sa moom suñu sooy yow jàng ak jàngale rek yow fii nga ne te mooy li jag ku ca néewul ma nga ca jag lii mooy dugub suñu sooy yàlla may lii la bëggoon suñ bàq yi lii la bëggoon néewul ba néewul yaa ngi yoon si gën nga yow suñu sooy fexe ba jàngal alxuraan mu mokkal alxuraan yar ko ba muy soleeg sa femme lii ngay fayee suñu sooy xamal nga daw ñi seen borom bañ jëf digal bàyyi tereem nit ñaa ngi sant gën a ko yéem te yéem nga sa bàyyi bu dëri son rus ndax alxuraan yaa ngi koy rus yaa ngi sikkar ne ko rus doo rusale ko faayu yow yaa moo gën a wóor ngir yaa ngi jàng woor te tamit woo ci lu wóor lii reeno nga tey suñu faayu suñu faayu lan ngeen a woon ci jàng nekk lan ngeen a woon def nga ko yow na mu bëggee woon bëggal nga lool sëñ Suhaybu sa maam moom moom alxuraan amoon na doomi alxuraan am sa si si alxuraan yàlla la jagleel Suhaybu am saa di bàyyi naas mi am sa it amul kalaas képp ku koy jàppee kalaas na jéem a watu Suhaybu xam naa wax dëgg xasaay téeméeri mbir mi dañu màggale dañu jërëjëf. ngi nuyu kilifa yi fi teew yëpp di jiital ci nuyoo bi Serigne Mountakha moom Cheikh Mouhamadul Basir. di nuyu sëriñ Abdou Samad moom sëriñ bu ak sëriñ Amsatu mi ñu fi dajale xam naa man samay kàddu du gudd lool ndax jotaay bi ni mu yàggee te kilifa yi war a jël kàddu waaye bisub tey bi kuñ ci ne jëlal kàddu te jëloo ko xamoo li xew ndax ku ci feeñ mën naa am dootoo nëbbooti ba mukk ndax bisub xasida yi la ndax alxuraan bu fekkoon gerte la gu jóge ca tool ya ñam fekkoon ci jamono ku ne da koo jël ñenn ñi caaf ko ñenn ñi baxal ko sëñ Tuubaa moom bi mu ko jëlee da koo segal te nag ma ne te nag ku ne xam na ne caaf ak baxal ak diwa ko gën a mën a yaatu ndax diw mën naa togg lu ne moo tax bi mu ko segalee muy xasida yi xasida yi man lu ne sëriñ am satu jërëjëf mu mel ne nag Serigne Touba moom damay faral di wax ne daan na bu yàgg ndax dafa wax mag ñi ci njaareem ne leen baatub sa jëjtu xam ngeen lu muy firi ñu ne ko xamuñu ko de mu ne mbër mi ñëw ci làmb ji daan mbër yëpp ba mbër yi jeex mu taxaw ci digg arène bi amatut kum bëreel nu muy def ñu ne ko xanaa day bàkku mu ne kon baatu sajajtu de mooy curr mooy daan naa ñëpp Serigne Touba ne man laataa may songoog noon yi laa daanoon ñëpp daan ne sajajtu la dal ah daayi xablu mujaahidan sëriñ am sa du jërëjëf xasaay itam yooyu nga xam ne boo bëggee gis njàmbaaru nit dangay laaj lu mu wax wala kum yar wala kum jur ay waxam mooy xasaa it yi yonent yàlla ibrahima dane yàlla damaa bëgg li ma defal nga defal ko samay sët yàlla bañ ne ko ndax sa sët yi ku ci dutub tooñkat ma defal ko ko israil mi lëmbaaje jamono bay noggut waa Palestine baatu israil li muy tekki mooy yàquuba te yaquba isxaaqa moo ko jur isxaaqa ibrahima ko jur kon ku ne xam ne sëtam ya am nañu ay kàccoor waaye nag suñ borom ne du ma yem foofu wallazina amanu wa tabaatuhum zurriyatahum bi imaanin hal xaqnaa bihim zurriyatahum sëriñ tuubaa daan ne zurriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabiyal mustafa tajtahidu kon ba léegi làmb ji tëjagut waaye nag li sëriñ bi joxoñ foofu moo mat a xam waxut ne sama sët yi dañoo baax de dane tayyibatan yu baax waaye daal cay teg nag ne tu jaddidu te Serigne Touba dane woon bil Moustapha nawaytu maa yu jaddidu kon day mel ne jaddit googu du wees ba mukk falaa budda ci ñuy yeesal diine fu ñu mën a toll mu ne sama sët yi dana am ñoo xam ne bu jamono jaxasoo ba nit ñi tasaaroo xàmmeetuñu ab sëriñ ak këriñ xàmmeetuñu ak leer ak lëndëm dana am ñu dem beru ci ay ruq wéetal fa seen boroom wéet fa ñoom dong samp ñaari néegi ñax ñoom ak seeni taalibe léeg-léeg ñu añ léeg-léeg duñ añ léeg-léeg ñu lekk miskit léeg-léeg duñ ko am ba mujj seen kër xat ba dañuy mujj di daw nit ñi ngir mën a jaamu yàlla loolu mooy ci wéet ngir mën a defal nit ñi sëriñ Amsatu jërëjëf sëriñ Muntaxa fi may daaneele yàlla na la fi yàlla yàggal waaye na sam xel dal ci ñaar ñooñu toog ci sa ndeyjoor muy sëriñ Abdou Samatum sëriñ bu ak sëriñ Amsatu sëriñ Amsatu kenn du ko gis bayab yoonu mu murit waaye sëriñ Abdou Samad kenn du ko gis bayab yoonu murit lislaam rek lay teral fu mu toll dafa am ñaari xale yu gañe concours alxuraan ci àdduna bépp fu ne ñu wër fa kero ba ñëwee ci sëñ Abdou Samatum sëñ Sohaybu dane leen dama leen di yóbbu màkk daal di jooy ci alxuraan ja ne ma su ma yóbboo maam jaara dong te yóbbu ma Muhammadul Mujtaba day mel ne li ñu ko tuddee sama a tax te alxuraan dong laay teral biñ demee Màkka ma daje fa kilifa gu mag nettali naa ko sëñ sama Samad ne ko ñaari xale yi ma àndal sëñ Abdou sama a leen indi Màkka mu ne ma ku ko jur ma ne ko sëñ Soaybu kooka du murit leneen la ci yeneen mu ne ma damaa nekk Dakar yorub kaamil dugg ci oto oto ba asamaan si di taw ma wàcc làqatu ci station yor kaamil bi am benn waaye bu ñëw di kof ci taw bi ak ñëw jox ma ko ne ma dugal ci alxuraan ji ma làmb sama poos génnee juróom fukk di ko neexale mu ne ma man yelwaanu ma taalibe sëñ Suhaybu laa te sëñ Suhaybu féete woo alxuraan moo tax may bañ alxuraan ji tooy salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. sëriñ Xamsatu bis bi nga xam ne mboolem jàngikati xaside yi ñiy durus ak ñiy yëkkati ñoo àndandoo di ko defee fii ci moom ngir di ci sàkk ngërëmul sëriñ bi. nga doxe ci nii nga ci doxe woon daaw nu jël loola di ko dimbandikoo di ko bége ba tey jii barki démb bi ma la ko waxee ne la yalwaan nañ dey bu amoon lañ amoon daaw dana baax lool ci taalibe yi nga julli si fa timis te ñaanal leen la nga ma ca tegal rekk dafa doy dane ma bis boobu day bu ma doon raam di fa demit danaa raam dem fa teg ci ne ma bu ma demoon ba mënuma dara bañ ci ma teg ci pus pus sax danañ ma ca teg ma dem fekke ji te loolu muy dëgg ci moom moom ñi mu bokkal sëriñ bi kum ci gis sëriñ bi lay xool ci yow moom lay wut ci yow nun nag sëriñ bi nongoog rek la waxoon daaw rek la wax ren yaay sunu lépp di sunu kilifa di sunu lépp rek sëriñ Seex lim lay faral di wax te tàmm nu ko wax ba ñu miin ko ci bi ñuy gone ba nëgë mooy sëriñ Muntaxa mooy taawu kër gi kon nun de dañoo fekk suñuy waajur doy loola xam naa ne am na ci lool sax yow ci sa muroo atu ak waggar gi nga waggar waa kër sëriñ bi doo bëgg sax ku ko wax waaye nag day loo xam ne ku ko waxutit ku ko xool gis ko ku ko déglu dégg ko loola mooy li tax nga doy doynu sëriñ saalixu sëriñ murtada radiallahu anhuma bi mu fi jógee sëriñ saalihu daf laa woo ba nga ñëw mu ne la sëriñ muntaxaa sëñ murtada dafa wàccu liggéey te yaa ma ci doy demal taxawul ma ko te booba magoo fi waaye la mu xool ci yow ba def loola ko moo ko xam bi ñu demee it ba def lam la nga war a def ci suñ laa ba mu jàll ba mu la woo la mu la wax xam naa ko yëg naa ko ba yàlla dogal nga mel ne ku tàggoo sa sago di jooy ndax mosoo dégg sëñ Saaliw wax loolu mooy sëriñ Muntaxa loolee nga defal sëñ laa man mii itam noonu buñ ci àggee defal noonu loolu moo tax kero bi sëriñ Saaliw wàccee sëriñ Seex Saaliw man mii la yebal ci yow ne ma neel sëriñ Muntaxa la ko sëriñ bi dénkoon egsi na nga dem taxawu ko na nga taxawoon sëñ Murtada ma ne ñaari doomi sëriñ Touba nag ku ñu tànn ba nga ne doy na ci nga taxawu leen man wóor na ma ne koo julleeti mu dem àjjana waaye du ca yam sëñ Abdul mu baax mi dafa waxoon ne kenn di wax ak moom ne ko Mbàkke damaa dégg ñu ne koo jullee mu dem àjjana mu ne ko déedéet bul yam foofu ak ak ku ma jiit ak julli loolu lii nag sëriñ bi njëggal googi ak liñ bëggal taalibe yi te mënuñu ko moo tax ñu ñaan la nga ñëw ne xam nañ sa daraja xam nañ sa wàccuwaay bëgguñu laa sonal waaye xam nañ sa pas-pas sëñ Tuubaa moo tax ñu ñaan la lii li muy diis diis te nga wax ne loo ko tëli tëli da nga ko def kon nag yéen bokki taalibe yi na ngeen yëg ne képp ku jullee fii ànd ci julleem gii yóbbaale woo bàkkaar set nga wecc wecc wecc sëriñ Xamsatu nag ak cantam ci yow mënu koo wax ci làmmiñ ndax waxtu wu ne nga di ko won ci sa bopp cofeel gi nga am ci moom ak yaakaar yi nga am ci moom loolu ak laxasaay la koy def fas yéene gën a góorlu dem ca kanam mi ngi jottali nag ay cant moom am Amsatu ci mboolem mbokk yi fi ñëw ak taalibe yi fi ñëw sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke mi nga xam ne mooy sunu kilifa dox sunu digg ak sëriñ Touba te ngay kilifaam ñëw na fi biig wax fi wax yi rafet sant ko gërëm ko ñaan yitam ne mi ngi ñaan sëñ Touba te am na ci kóolu téef ne fii ku fi ñëw loo fi ñaan sunu borom def ko loolu sëriñ Cheikh wax. loolu nag li tax tudd gu ma woon ku mag ki mooy yaay moom te yaa ko fi teewal kon la nga war a wax ci ndigalu sëriñ Cheikh Mati Lay jërul man may jottali dara sëriñ Cheikh Mati Lay ndax moom at mu ne bu ma ko ko fàttalee la muy wax mooy xanaa kay da ngeen a kii rek waaye lii moom jërul fàttaleeti ni ngeen koy def te ko yaatal waxtu bu ne waaye amatul ndigal la ndigal nañ leen ko ba noppi kon nag ndegam da ñëw taxawal fi seex sëriñ Seydil Muxtaar teewut sëñ Seex Baara ñëwoon na ci bëccëg sëñ Xaadim doomam mi ngi fi waaye yow yaay kii ko doy ci lépp. lu ko ñor lu ne mu yabal la ca ñëwaat nga ngir jëmmam loolu kon ñu ngi lay jottali sunu cant mu jaare ci yow nga yóbbul lu ko ca moom ñoo ngi jéggul yóbbante gi nag nii mu sante bokkam yi itam képp ku bokk ci maaram képp ku bokk ci maam Balla Aysa képp ku bokk ci Sëñ Mor Anta Sali képp ku bokk Seexul Xadim ak noo ca bokk ci góor wala ci jigéen noonu la boole cant yooyu teg ko ci loxo Sëriñ Muntaxa mu jottil ko bokk yépp waaye naka noonu itam képp ku mas a jox sa bopp sëriñ Touba tàmbalee ko ci sëñ Adama Guèye seex Adama Guèye seex Ibra Fall sëñ Mandoumbe seex Issa ba ci sëñ sëñ Kisi la sëñ Ndindi sëñ Ndindi mi ci mujj seex ñooñu ñëpp boo leen boolee seenug cant mbakke ndegam ak taalibe rek la ñor kon mën ngaa wuti taalibe yi foofu mi ngi lay fi cant googu de ko teg sa loxo ndax yow jàpp yoo sa bopp sëñ ci biir taalibe nga boole sa bopp kon nag bu ëllëgee. bu sëriñ bi fay taalibe yi dalay fay bu sëriñ bi fay bokk yi dalay fay yàlla nañ bokk ca pay googee rek bu nu ci kenn ëppale li ci des nag mooy bokki taalibe yi nga xam ne ñoo sos lii sëriñ Aliou wax naa ñoom li ma ciy dolli mooy kañ leen gërëm leen sant leen ci turu sëriñ Amsatu ak ci turu sëriñ Seex ak ci turu sëriñ Muntaxa ak ci turu Seex Sidi Muxtaar ndax fii dootul màggalu kër màggalu yoonu murid yépp la li sëriñ bi wax dafa baax wax ko waaye bu ko waxutoo ni nun xam na ne foofu la ne bu doon raam di fi ñëw dana ñëw yeeyu mbooloo bi xasida yi nag du alali baadoo la ndax mag mag mi ko liggéey liggéeyantuwut xusuuri xalat wal ahlu an ni tafarraqat li mat xilla si anhu lmadihu xasiiru dem juróom-ñaari at juróom-ñaari weer lu topp ci ay fan diñ jàkkoonteeg la muy jàkkoonteel bàyyi fi mbooloo mi gisatul addiya gisatul ko koy warmaal gisul kenn ku dul ku koy def lu ko naqari ak di ko ko wax mu jaayanteeg boroomam ne foofee maa yomb gi mu njëkk dem am fa juróomi at dem na ba juróomi at yi des lu tuuti mu door man mën a dégg koy wax wolof waxuma laa ku ko gëm wala waxuma ku koy warmaal bi mu ne cëpp li mu njëkk a def digg mag boroomam. da ko ne jaayante naa sama noon yi duñ xam sama soxla du ma lekk seenug lekk duma naan seenug naan suñ borom ne ko danaa la jox sërru ci lem nga di ko dunde doo lekk seeni lekk dana la doy ak lekk akuk naan defal naa la ci barke mu ne ko waaye lem gi it bu fekkee ñoo ko moom fa suma ko yéenee laaj mu ne ko danaa yebal yamb yi ñu ñëw ci yow loo ci soxla nga jël ko ci ñoom dafa mujj sëriñ bi ne lem yi yamb yi dañ koo sonal a sonal ba mujj dafa waxtaan ak ñoom ñu doon ñu ne léegi dañuy def bu alxemesee groupe sàngam ñëw bu ajjuma beneen ñëw ndax mënatuñu la jël nañ ko witt witt ba xamatu lu muy def benn yoon la daa lekk lu jóge ci garab te mooy koor bu ñuy um bu xët bu dog jotee mu jël ci xobi mango yi muucu ko ba dara jàll mu yëg na dog ndax sunna si bu xëdd jotee mu defaat noonu sëriñ Abdul Ahad nett li ne fii ne am na yoon woo xam ne ab xaal fexe ba am ko ubbi xaal bi bu dog jotee mu dog ci ba jàll dara jàll bu njël jotee mu def ko nee na ba koor ga jàllee xaal ba mën naa ubbiwaat kon kooku xam nga ne yii nii lekk yor ko woon ko yor ñuy def ci xaside yi sëriñ bi loo wax ci moom lu mu rëy rëy li mu wax ci boppam ko gën a rëy ndax dafa xam boppam ba mu gisul kenn malaayika yi ñoo koy awal xasida yi day jóg la xasaayu takk ndigam aw ci tefes gi di dem di yëkkati xasida yi ca kaw kon kenn jumbuta jàng xasida moo taxit yàlla defal ko ci xasida yi loo xam ne mosu koo defal kenn te du ko defal kenn bari waa ne murit boo dégg mu ne ci biir bàmmeel moos boo mënoon wax ak moom danaan la jotumaa gis sëñ bi ndax bi mu laataa ñëw xasida yee maram jaawartu mii loolu la ci wax dane damaa ñàkkuk jot te bëgg mu dima wuuti ci murit yi ku ko mokkal malaayika yi duñu laaj ci bàmmeel la ma waroon taxaw ci bàmmeel di wax ak malaayika yi bàyyil diw bàyyil diw du ma ca fekk jaawatu moo lay layal xasida yi day bu ma duggee ci biir waxtaan wi day mel ni ubbi lu ma sëriñ bi damay waxtaan te loolu waruma waaye ma xam ne sëriñ bi daana toog am na bis mu toog soxla sat la gu bax yàkkamti ko lool am kum ne baxalal ma sat la gii kooku defe ne siñ bi yàkkamti gi mënta dem di wuti matt di ko kii mu daal di foofu xasida noor daay leen gi mu yoroon tiimale ko satala mu daal di bax bay bay bay bay tuuru xasida gi rek la ko tiimale sëriñ bi ne ko lii man mi ko bind maa ko dàq demal wutik sat la ay <laughs> matu matum jalambaan baxal ko ci ba mu bax nga àndil ma ngir wan la ne murid yu mag ya lu ne lañ daa def ci xasida yi lu ne dégg naa ci sëñ Sohaybu bu mu ne tox toxfatu day murid yi mësuñu cee weesu luggug jaan xas xas rek toxfatu duñ ko ci weesu mukk aajo yi lu mu rëy rëy nee na mësuñu weesu jàpp ba sell jàng ko juróom-ñaar yoon mu faj seen aajo kon nag lu des ci noonu la dese waaye du ci xasida yi ah yaakaar naa ne nag li sëñ bay Jaxate di wax naan cëru waay cëru waay ku bëggit ba fa mooy lii ndax bisub xasida yelloon na lool te jaadu lool waaye dafa mel dañ koo dencoon ba sëñ Xamsatu ñëw ñu jox ko ko këru xasida yelloon na lool tajaadu jaadu lool ni ko alxuraan mu amee ni la ko xasida war a ame waaye niñ defal sëñ Abdul Ahad mu di ko nekk di ko nekk ba mu ñëw mu door wutal alxuraan kër noonu lañ la defal mu di ñu di leen nekk di leen nekk xel du ci dem kenn du ko bàyyi xel ba mu egsi ci yow ndax sëb cër nga dëkk këru xasida gi waaye kër gii day daaw la sëriñ te xeer wi liñ fi nasaroon liñ fi nasaroon lépp bu dee juróom benn xaaj benn bee àggagul mooy mbaar mii te bus bii jàll ñu sam ñu som ma ca kon nag mel na ne li fi taalibe yi indi gis ngeen fi mu ko def Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma danaa wax ne nit ñi de ba ñu ñoo joxe waaye dee leen laaj luñ man te di ko def fuñ xam yéen nag li ngeen laaj li ngeen laaj wala laaju ngeen sax yéen a jox seen coobare fi ñu ko def gis ngeen ko mi ngi nii ak seen bët kon nag sëriñ bi xanaa soññi addi yi sëriñ am soto waxoon ak taalibe yi ndax loolu lu am am solo la gàddu sa ab saak mu fees dell ki xasida ngay durus rekk di dem defe na xasi joxe addi waru la loolu ak waru la nañ ci mucc daa bëgg mboolem jàngati xasida yi nag ñu di ci boole di joxe yoonu joxe moo ko yor dajale woon nañ ay addi yët ko ki fi nekkal seexul xadim mu ngi leen di ñaanit ngeen fas yéene bu ngeen tekki waate fee tàmbali ko waajal bu dajee ñuy taatu ki fi nekkal seexul xadim boobu ëllëgee buñ demee ba fay fa ñuy fayee ñuy joxe yóbbal leen ci ñi ñi fay gaal gi kat ku ci defut sa mbubb boo ëllëgee bu ñuy laaj it dara gaalu kese wàlliwutum ndaje kon nag sëriñ bi ngir guddal fii lay gàttal rek di sant cant gu ànd ak ngërëm di sant njaboot gépp njabootu sëñ Tuubaa gépp ñëpp teew nañ fi li gën a neex na nga digg tëjal ko mu wóonu ne yow loo ñaan suñu borom mu defal la ko ndax àgg nga ci sëñ Tuubaa foo xam ne jeex nga ci moom takk takk takk takk te wóor na ma ne bëtam bëtub yërmandeem boobee mi ngi la koy xool ci mbooloo mii kon nag lañ ñaanoon daaw la ñuy ñaanaat ku fi egsi na mucc te bu mu yóbbaale bàkkaar wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu صلى عليه من هداه والتقى قصائدي من معجزات ملتقى صلى عليه من هداه والتقى بفادة ساقت شيوخ التربية وكل خير وشيوخ الترقية قصائدي هاجت قلوب الأنبياء مع الملائكة عند ربيا قصائدي مما ربي تنقل لا ينتهي فيها نبي يعقل قصيدتي ساقت قصائد الكرام والكتب أبد الخيام إذا كتبت الدرس عرش الله ظل وغاب كل جان الله إذا كتبت الدرس عرش ربنا وسبحت بنت العزيز بالجنان سبقت غيري إلى الجنان مع النبي فرس العدنان يجدني عند المليك مقتدر كل ولي للجنان يقتدر jiituma ci wax ji doy na sëkk waaye waxi Cheikh Abdou Samad dara da ci mënta dolliku ndax li nu ci bëgg a xam lépp ngi ci biir waxam ji kon dara da cee mënta dolli ko lu dul nag rekk sant ak santlu nun lii gën a war ci noonu muy sant rekk sëriñ bi cant gi nag dëgg la mën nañu jéem mu dëggu ci xol yi gën a jéem it mu dëggu ci xel yi gën a jéem it nag mu dëggu ci jëf yi nun sant sëriñ bi rekk mooy suñu wartif ndax fàggul nañu lépp dëgg la yàlla moo nu bind andi nu fi di nu jaamuloo nu di jaam ñu war a jaamu kon bu bëggee sant sëriñ bi il faut que nangoo jaamu sunu jaamu nun mën nañ cee fas jaamu yàlla liggéeyale ko sëriñ bi ginnaaw loolu moom jaamu yàlla moom sañu nu ko bañ kon sunu jaamu yàlla nun mën nañ cee fas liggéeyale ko sëriñ bi luñ ca mën a dolli nag ce lan sunu borom bayee nun ca mën a dolli nag ci jël ko liggéeyale ko ko ñu dolli ko ca kon suñu cant nun foofu rek la war a nekk ak cant dong lay dolli ci wax yi Cheikh Abdou Samad ji góor góorlu ci sant sëriñ bi fa tabaarakallaahu paggu paggu téef bi nu sëriñ bi faggul ci nu bëggu ko ba mu gënoon lu lépp nu doyloo ko ba mu gën gën noo doy lépp loolu mënoon naa doy waaw ah, nag sant sëriñ bi ci ñun wërta am fu mu yem bëgg gi moom ak doyloo gi moom moo na ko faggul am nan ko doy na sa kiitam tey ëllëg waaye nit mënut a toog loxoy neen li nu sëriñ bi defal war noonu ko sant sax ca sant ga faw feeñ moo ngi àdduna yóbbaale ko suñu yóbbal ci àllaaxira di sant Sëriñ Tubaa kon nanu góor bu baax lanu ci gën a dimbali nag te yombul muy waxtu wu nekk muy jéem a gën a xam sëriñ bi muy waxtu wu nekk muy gën a jéem a dund sëriñ bi lu gën a xam sëriñ bi gën a raw lu ko gën a dund gën a kawe ñépp kon foofu la liggéey bi nekk ku bëgg liggéey foofu la liggéey bi nekk nee na jéem a xam sëriñ bi sax ca dàkk te di ko jéem a dund lii sëñ Abdou wax sëñ Abdou Samad wax yi mu fi li fii loolu doomu aadama mënu ko waaye nu nu jël sëriñ bi teg ko sunu kanam am nam nam doon doxe digg ma boroomam ak digg ma yonent bi am nag doon doxe digg ma boppam nanu fab sëriñ bi ginnaaw lu ko gën xam gën raw lu ko gën a dund gën a kawe ñëpp foofu la liggéey bi nekk amaa moom ci boppam ginnaaw sant ko rek mu war a doon suñu liggéey yaar buñ ca góorgóorloo dañ koy gën a jege muy gën a bég ci ñun yaar nun ci gën a góorgóorlu dañuy gën a jegeel boppam di gën a bëgg ci loolu nag yaakaar naa ne murit loolu war na ko jaral lu ne kon yaar la ne war a góor gën a góorgóorloo dinaa dañoo bëgg sëriñ bi di bëgg ci ñun nu bëgg jege sëriñ bi tey ga nag dañu góorgóorlu ci yar nañu jéem a set set set tii bakkaar sunu kepp kàttan yomb nu waaye nañ ko jéem ndax moo ni ci sëriñ bi nanu gën a fonk xasay xasay di mooy suñu xaas lu nu gën a fonk sëñ bi di gën a bég ci lu ko gën a jàng gën a jege sëriñ bi waxi sa yax Abdou Samad bi loolu yaar yooyu laa ci dolli nanu góorgóorlu bu baax ci jéem a set di gën set ndax lu mu gën a set rek sëriñ bi gën a bég ci ñun lu mu gën a set gën a jege sëriñ bi te man ko xasida yi nag yi moo nu war a dàqal lépp lu ñuy lekk lu ne dagg xasida moo nu ko war a dàqal luy dalal xel lu ne ci xeeti ngar nay jàng xasida yi moo gën a gaaw noonu rek la demee foofu rek laa waxi Cheikh Abdou Samad ji boo ci dolli dara waaw cant rek laa ci dolli kon nan ko dégg bu gën a dégg bu baax nan góorgóorlu ak lu mu jafe-jafe-jafe nanu jéem a góorgóorlu di gën di set góorgóorlu ci xasaay di di ko sàmm di ko jàng def ko muy sunub dund ndax mën na ko loolu rek la li ci maanaam nag sa sa yëpp sax moo tax ma fa bàyyi li ma nar a wax waaye maa ngi jégalu maa ngi jégalu déglu leen yéen ñëpp sëñ bi ne maa ngi waxal bokki taalibe yëpp dafa am lu ñu lay ñaan kenn ku ne ci noonu am na xasida goo jàpp ne mooy sa xasida ni murit bu ne mel nga xam ne doomi sëñ Tuubaa yëpp nga fonk te gëm leen waaye da nga cay fab kenn mu ngi sëb sëriñ nun ñii ku ne am na xasida goo féete woo defe ne mooy sa xasida waaye lool dañ ko coobarewu def ko rek tey jii nag dañ lay ñaan nga jox nu goo xam ne da nga naan jox naa leen digal xasida sàngam goonu jox rek ñu foog goonu tibbal rek ñu sëñ ma ko nooru daari ngeen def doy na sëg nooru daari nooru daari moom nooru moom am naa am naa ci am naa ci firnde am naa ci firnde am am naa am naa am naa ci firnde nooru daari nii am naa ci firnde nooru daari nii am naa ci firnde sëriñ Cheikh Salihu moo ma woon dee ma ko jàngal. Nooru daal nii Cheikh Salihu moo ma ne woon dee ma ko jàngal ma di ko jàng bi ci mujj ci mujj gi bis ma jàngal ko ko. bi ma ko gisatul te xam-xam yi bari aji mu juree ma jàngal ko boo koy jàng doo ci fas dara Seex Saaliw rek laa koy jàngal moom laa koy dëggee waaw waaye xasida yi xasaa yi di rek laa wax waaw buñ ci bu ci wóor na sëñ ne ko bind koo ci jàpp doy waaye nag lu gën a bari gën a baax loo ko gën a yaatal mu gën a baax waaw li ma doon li ma ci doon nag moo di loolu dafa dugg lépp ci wax Seex Abdu Samad bi sëriñ ba Basiru dafa am bis mu maag beneen mbokkum bi muy waxtaan ak ñun ci sëriñ bi mu lam nu jëkk nett li ci biir wax ja xam koo xam ne dafa ñëwoon sëriñ bi di ko di ko jaaxle daal bëgg mel ne ku bëgg xam sëriñ bi lu mu doon sëriñ ba mu yàggee ba yàgg sëriñ mu ne ko diw boo yoroon dalli nañ di ko doxee ba mu xar doo gis ku mel ne man <laughs> ah sëriñ bi nag sëñ Basiru moo ma fullaam te wax jooja la dem ba tàng xaal ne waaw waaye sëriñ bi sax am na ful foo ko toll rek mu toll la fa. day waxtaan day wax ba yàgg mu gën na ful la toll rek mu toll la fa kon bis bii leer taxaw sañ xamsatu bii leer na naññ leer na naññ. sëñ bi foo ko toll mu toll fa leer na nañ moom nag dañuy gën a ñaan rek waaye sampu sëriñ bee waaye dañuy gën a ñaan nag bu gën su ma gën koo sàmm bàyyi ko fi lu yàgg mu nekk ci liggéeyam bi fa tabaarakallaahu alhamdulilahi lépp pàggu sëriñ bee taalibe yi bëgg na sëriñ bi lool te boo ko di seet da ngay defee ne gone yi sax yi jóg dëgg ñoo gën bëgg da boo ko di seet ñëpp ko bëgg taalibe yëpp ko bëgg waaye boo ko da ngay defee ne gone yi sax ko gën a bëgg loolu nag loolu mbir la loolu la gone yu ndaw yi ak jigéen ñi ak ñëpp gone yu jigéen ñi boo ko di seet da ngay defee ñoo gën a bëgg sëriñ bi loolu mbir la mën naa dalal xel waaw sëñ bi fag fagul na nu lépp waaye bun na yàcc bun yàccaaral bun sàggan na nu jiinu sant sëriñ bi ci ni mu bëggi noonu rek la demee jërëjëf nodd ca kanam